voilà Daouda Waly Ndiaye indil ma indil ma affaire u Cheikh Ahmed indil ma affaire u Cheikh Ahmed di wax ni ma Cheikh Ahmed Cissé bi mu génnee dafa am lu mu man ni ma wax ci Cheikh Ahmed Cissé lu ma gëm la dama ni Sénégal léegi dafa am benn triptyque triptyque boobu mi ngi tudd triptyque boobu mi ngi tudd nan laa ko woy ci livre bi parce que loolu c'est important parce que problème mu problème mu problème mu Ahmed dafay wane loolu ci Sénégal ni muy doxee maa ngi ko bind ci nouveau type de sénégalais bi mi ngi tudd maa ngi ko tuddee la triptyque infernale lynchage diabolisation liquidation mooy lan tey bu ñu la bëggee liquider Sénégal dañuy xëy suba commencer di la attaquer. toog ba caag ñu diaboliser la maanaam tam la dëmm da ngay xëy suba nekk soo mandat de dépôt loolu la fi am ma ne Ahmed Cissé dafa wax lu leer daf ni man jullit laa wax loo xam ni sama diine la jëm bu fekkee dama tooñ dañ ma war a woo yedd ma walla ñu won ma lu tax maa tooñ ak fan laa tooñi mais ma wax li ma wax kenn woowu ma kenn woowu ma ci xam-xam dañ ma jël yóbbu ci procureur boo xam ne li muy àtte du charia mais loolu mais loolu wax bu ñu mën a dégg la xoolal par exemple maam Matar maam Matar bu Jamra Guèye chaque jour mu critiqué nit ñi wax nit ñi lu ko neex ma wax ci livre bii ni ni mu doxale ci Ahmed Cissé bi ñu waxee ci biir waru koon génn ci biti baaxul mu jël takk mi ko yëpp di ma attaqué waaw kooku léegi dëgg lay doxal diine lay doxal wala problème mu boppam lay gérer nañu waxante dëgg moom mi ngi attaqué nit ñi depuis bi ba ko xamee doomam rek la attaqué woon bi mu amee problème attaqué nañ ñëpp ba mu des doomam tu comprends mais après yow ñu ni li nga joxe waroo ko doxale rek nga jël micro yi lu ne tudd na ma nee na manipulateur la lan lan laa manipuler man manipulé ma dama bind li ma xalaat yi moom dama ko bind mu leer nañ ni loolu manipulation ban manipulation ni muy doxale d'accorduma ci parce que nit ki aussi kenn du ko yedd ci mbooloo ma Matar Gueye dugg naa ñëw naa prison mu ñëw seetsi ma ñu wax ba pare mu ñëw seetsi ma prison laajuma ko xaw ma mooy kan mu génn def interview nit Cheikh Yérim Seck wax naa ak moom nee naa ko mu présenté ay excuse mais xoolal xoolal boobu xeetu ñàkk sutura man woowu mën a prison néew mën a nga seetsi ma nga ñëw seetsi ma génn takk rajo yi di wax mais méthode boobu moom il faut mu bàyyi ko léegi nga ne ko méthode boobu baaxul parce que yow wax nga ak Ahmed Cissé mu wax ak yow ci nekk ak nga génn weer ko mu braqué wu nga dem tëj lu ko ba pare continuer di ko attaque loolu ñu wax la ko nga ni noonu noonu nga tëkk takk micro yëpp di attaqué nit ñi yow kon diine ngay doxal wala yàlla ngay doxal wala dëgg ngay doxal wala yow sa personne sa bopp moo la ñor il faut que les gens moo tax gis nga chapitre bi ëpp importance ci libre bi. te sénégalais yi liiruñu ko mooy le nouveau type de sénégalais loolu moo tax xoolal man dinaa dem ci télévision yi pour wax naruma ko woon sax wax gis nga livre bi il faut ma leeral ko sénégalais parce que documentaire bi doyul ah non non non non non il faut nit ñi lire le nouveau type de sénégalais parce que xam nga affaire dañu jël ay polémiques yoo xam ne amul solo pour jéem a nëbb li li nekk ci livre bi mais li nekk ci livre bi yépp dinaa ko wax ba mu jeex. tàkk takk takk tàkk tàkk tàkk tàkk wallaahi parce que chapitre yëpp dinañ leen jël bu ne dañ ko liir en français dugal ko ci YouTube bi chapitre bu ne dañ ko jël traduire ko en wolof dugal ko ci YouTube bi ba pare temps bu mu laaj pour dem ci télévision yi pour dugg dans le détail du livre dinaa ko def kon man xam nga duma nit ku ñuy xoqtal daal voilà beneen affaire bi mooy euh, affaire Bouba saa yi nee na ma Bouba Ndour Bouba Ndour du ma tontonte ak moom vraiment non non non du ma tontonte xala dafa joxe regardam non dafa naa wuy ma xam nga lan mooy sama problème man dama bind livre ok ne na ci wax wala xalaat ko ci lu ko neex aw ma ci problème man tant que saaga woo xam nga man xoolal la preuve ñi ma ñi ma liir sama discours liminaire ñooñu ñëpp li ñu wax ci d'accorduñ ci li ma wax mais respecté naa li ñu wax. non non non boobu non même bu ma doon toog ak moom plateau garaawul xam naa ni maa ngi doon toog ak moom plateau jàkkaarloo loolu yëpp xam naa ko mais garaawul xam nga na wax lu ko neex man awma ci problème voilà. xam nga li yàlla nañu yàlla musal ci nga bind livre kenn waxu ci livre na ñëpp wax wax ji lu mu gën a baax mu gën a bari lu mu gën a bari mu gën a baax parce que succès la ba waxuma dara sax waaye wax ji dafa tax ñu jaay jaay livre bi ba xamatuñ luñ koy jaay lu ñuy jaay. xam nga donc garaawul loolu yëpp day defar yàqul dara bon Ousmane Ba ni ma euh, kii euh, waaw kii ni ma Elmat Dieng ni ma ci livre Elmat Elmat Niang waaw ni ma ci livre bi man dama ci tàgg <laughs> nee na Elmat Niang nee na <laughs> Elmat ci livre bi man dama ci tagg Macky Sall ak jabaram. ak dama naa xas ci Ousmane Sonko. mais yow doo mbakki doo mbokk Macky Sall doo mbokk Diabara Elmat sincèrement boo nee dama tàgg Macky Sall ci livre bi mooy doo mbokk Macky Sall doo mbokk Diabara boo nee dama xas Ousmane Sonko ci livre bi mooy dégguloo livre bi liiroo livre képp ku ni man dama xas Ousmane ci livre bi mooy déggoo livre bi liiroo livre bi amul benn chapitre bu ma def analise politique ci réew yi boo xam ni. teguma la dualité entre xa Macky Sall et Ousmane amul xam nga waa Pastef dama dama yaakaar ni mënuñoo lire quoi non mënuñoo lire non honnêtement mënuñu lire livre bi xoolal ñoom seen combat livre bi mooy arme bi ñu gënoon mën a am ci seen combat pour li li des ci seen dund lii nag raw na leen waaw xam nga parce que dañu concentré non non c'est li ma la wax nii c'est très important liiral boo bëggee xam ba xam livre bi dafa baax ci ci Ousmane Sonko wala déet liiral le chapitre sur la tache noire d'une troisième candidature sur l'histoire du Sénégal liir ko wala nga liir cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko qui fait l'affaire de Macky Sall liir ko nga ma ne waxuma nga liir ko ak liir fanatique da nga koy liiru liiru boroom xam-xam walla nga liir kon introduction bi nga xool introduction bi nga xam ni mooy partie bi ëpp importance ni mu chuté nga liir ko nga xool ba xam liir bi day xas Ousmane Sonko walla de et puis il faut ma wax leen dara ci Ousmane Sonko pour ngeen xam Ousmane Sonko. je n'ai absolument aucun problème avec Ousmane Sonko il faut ngeen xam ko Ousmane Sonko mooy lan dañoo man ak moom histoire personnelle xam nga mooy lan man ak moom ñoo bokk ci même université bi ñu jàngee moom dafa jàngee université saint ba pare bi mu demee mu def concours dem ENAM man ma jàngee université Saint-Louis am dem yokk yeggale sama jàng ci réewu tubaab bi